du ñu tay di ko ñaan mu may ñu kendalug jàmm ba tax na ñu koy ñaan di ko ne allahuma anta salaamun wa minka salaam ilayka yacudu salaam fa xayina bisalaam wadxilna aljannata daaraka daara bur yàlla yow yore jàmm ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu may jàmm yàlla nga ñu jàmmal ci suñu dundu yàlla nga ñu jàmmal ci suñu réew mi ñuy dund waaye yàlla nga ñu may jàmm fépp fu ñu mun a ne ak képp ku ñu mun a nekkal yalla nga ñu boole may ñokkooke la nekk fa yow di xeetu jàmm yi te yàlla nga ñu may ñu dund ci jàmm bu ñuy génn àdduna yan nañ ñu génn àdduna ci jàmm ñu fekk jàmm woowu ci yow nga dugal ñu ci këru jàmm ba nekk fa yow te mooy arjanna amin ya rabbal yàlla mën na ko sañ na ko am na ko moom dong lañ koy ñaan yan nañ ko yàlla boole defal amin yarobal rabbal alamin mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi ñu may ñu joxe waxtu yi fajar waxtu si néew ci ginnaaw ginnaaw bu noddkat bi yëglu ne waxtu ba war am audience bu noobul diggante jaam bi ak boromam mu nekk waxtu yu julli fajar yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ñu maana xadis ngénneelu fajar la fa nekk waaye la nekk ci ngénneelu séq ab jéego jullit bi di séq di dem joxe waxtuy fajar woowu ci jàkk ja moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi nii mu di ñu baaxee ci maana xadis ci ngëneel ba nekk ci dox dem joxe waxtuy julli yi ci jàkk ji ci na waxtu su néew bañ doon joxe ci ginnaaw tuuti mu doon waxtuy julli suba ngëneel ba fa nekk nag tey ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala moom lañ bëgg fas yéene ubbi suñu waxtaanam moom lañ fas yéene bëgg ubbi suñu waxtaan wi ak mbokku auditeurs yi ci Rewmi FM 97 point 5 ci waxtaanu fajar ba ngeen di ñun ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa yan nañu ko buur yàlla yombalal amin ya rabbal alamin mbokk yi xadis bi qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kullu xutuwatin sadaqa saxiihul muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ngi nii di baaxee jullit bi nga xamante ne daa nekkee daa dëkkee di bàyyi xel waxtuy julli rawatina waxtu bañ doon joxe waxtu su néew ci ginnaaw képp ku dégg noddkat bi di woote di yëglu ne audience ba jullit bi wara a am ak boromam waxtu ba jot na yonent bi nee na képp ku séq ab jéego jëmale ko ci jullikaay woowu nga dégg noddkat bi di fa woote képp ku séq ab jéego dox say tànk fas yéene dem wuyu woote boobu ñu woote yonent bi nee na bépp jéego bi nga séq daa mel ni génni nga sarax walla sàkkal nga sa bopp sarax moo tax mu ne ñu kullu xutuwatin bépp jéego tànku ndeyjoor bi mu di ko séq fu muy jëme tamshiha ila salaati nga di ko jëmale ci jàkk yi ngir dem julli foofu yonent bi nee na sadaqatun da sarax bi nga génnee ci sa jëmm yi bi maanaa ñu war see war a mën a andi commentaire bu ndaw mooy bépp jéego ba nit di yëkkati jëmale ko ci jullikaay ba mu dégg ñu di fa woote yonent bi nee na jéego boobu nga def xamal ni sàkkal nga sa bopp sarax mbokk yi ñu déggee ci ne ndekkite cëru doomu aadama rawatina cëru jullit ba gomi yàlla respecté woote bi nga xamante ni bilal bi da koy woote ci jàkk ji wala ci jumaa ji yow mi ñu woo pour nga dem rencontre am audience bu toll ni sa digganteeg sa borom yow jullit bay séq ab jéego jëmali ko ci jullikaay woowu yonent bi nee na sa dox boobu ngay dox xamal ne du neen daa mel ni say tànk ñu ngi sàkk sarax ba ngay épargnel sa bopp keroog bés pénc allahu akbar moo tax mu ne ñu kullu xutuwatin bépp jéego bi nga xamante ne jullit bi dina ko seq séq tamsiha ila salaati mu di ko jëmale ci julleekaay ba sadaqatun ab sarax ba mu créyel boppam la kooku da di jullit ba nga xamante ne moo fi nekk di génneel boppam sarax soo xamante ne amul kenn ku nar a génnee sarax bi mel nii waaw ba tax na ñu ñëpp nañ leen bokk bàyyi xel bi ñu di ko jëfi ñuy séq di bëril jéego ja ñuy dox di ko jëmale ci jàkk yi mbokk yi sallallahu alayhi wa sallam bi léegi ñeewent bu mu am ci xeetam cofeel ba mu am ci xeetam ndegem ci weeram lañu nekk boroom téere yu bari bind nañ ne waxtu wii ci weer wi rabiul awal ba ñu nekk nii ca la gane àddina mu doon jamono bu mu feeñ ci zahir kon la gën bari lañ ko war a teeroo ci weer ba mu gënisee àddina mooy lañu yàlla sant ne moom ak malaakaam yi ñu koy defal yenent bi ba tax na mu woote way gom yàlla ñi ne leen yéen na ngeen def ni ñun na ngeen ko ñaanal xéewal waaye xéewal woowu képp ku koy ñaanal yenent bi yow yaa koy bénéficier yow yay njëriñ ñaan ba ngay ñaanal yonent bi ndax résultat ñaan bi ci sa jëmm lay dellu moo tax ni ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yàlla ak malaakam yu tedd yi dañuy ñaanal yonent bi kon ya ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla wéetal ko te bokkalewu leen yàlla ak lenn bokkalewu leen yàlla dara buur yàlla ne leen sallu alayhi wa sallimu taslima yéen it na ko ñaanal xéewal waaye na ngeen ko nuyu nuyoo bi nga xamante ne mooy la islaam jàngale moo tax képp ku yàlla dogal nga dem makkatal mukarrama keroog nga war a dem madinatul munawwara dem ziyaare buqaatu sharifa boobu béréb bu tedd ba ñoom bàyyi kebe di taggee yonent bi ñu di ko naan borom barrière or borom barrière or boobu fa mu ku yàlla wursugal nga dem ziyaare bere boobe ca ngay gisee ne yaa ayyuha alladina aamanu sallu alayhi wa tasliman boobu falay nekk ndax foofu ngay taxaw daal di ko nuyu ne ko assalaamu alayka ayyuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu wala nga ne ko assalaamu aleyka ya rasulallah qad ballagta al risalata wa addalta al amaanata wa nasaxta al umma wa jahadta fi llahi xaqa jihaadihi xatta ataaqal yaqiin mu di baat bi nga xamante ne noonu la ñuy nuyoo yonent bi ci béréb boobee foofu mu nekk sallallahu alayhi wa sallam moo ne ko naan assalaamu alayka yaa rasulallah yan na jàmmi yàlla nekk ci yow yow mi yàlla yónni ci xeet bi maa ngi déggal ne xat ballagatal risaalata ca dëgg dëgg dëgg message bala yàlla jox ne nanka jottali jottali nga ko wa nasaxtali umma doon nga ko laxee biir xeet bi laxee nga biir xeet bi ci lépp lu baax waaye muy tëndku nga xeet bi ci lépp lu leen di andil tolof tolof jafeñ jafeñ seen dund leeral nga la leen di njëriñ leeral nga leen la leen di lor waaye nag laxasaayu nga waaw laxasaayu nga góor-góorlu nga takk say takk nga sa ndigg xeex nga xare nga ba dëgg yàlla bay la yàlla jox samp na ci kaw suuf si te noonu nga ko defee nag noonu nga ko nekkee ba keroog yàlla jëlee la ci kaw suuf si kon saxaabi ba nekkoon ci keppaaru yonent bi di anas bun malik radiallahu anhu nee na anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal man salla alayya salaatan waxidatan sallallahu alayhi achara salawat wa xattat anhu achara xataayatin wa rufiat lahu achara darajatin axrajahu ahmad wa nisaa'i wa lafzun lahu wa saxahahu albani mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisu anas bun malik radiallahu anhu anas bun malik nee na naka suñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu wax ne man salla alayya salaatan waxidatan képp ku julli ci man benn yoon nga ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin yonent bi nee na sallallahu alayhi achara salawaatin yàlla dina la dottil xéewal bang ma ñaanal mu multiplier ko ba mu doon fukki yoon du yem ci multiplier la xéewal yooyu ba mu doon fukk waaye wa xuttat anhu achara xataayaatin dinañ la effacer rëcc-rëcc xeetu bàkkaar ya nga rëccale ci sa jëf dinañ la effacer fukki bakar ya nga xamante ne rëccale nga ko bàkkaar nga ci bàkkaar yooyu fekk teyoo ko waaye du yem rekk ñu effacer la fukki bakar ya nga jëf te teyoo ko waaye rufi at lahu achara darajatin dinañ lañ yëkkatil fukki daraja dinañ la mi fukki kota fa yàlla ci daraja yu kawe ñu bokk dégg ci maana xadisu anas bun malik ci salaatu ala nabi ba jullit bi di jox yonentu bi njëlbeenu waxtaan bi nee nañ leen képp ku ci yonentu njëriñ bi yaa koy bénéficié woo ndax yow mi wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin benn yoon yonent bi nee na ak mucc boobu nga ñaan fa yàlla ngir yàlla defal ma ko yàlla dina la xéewalal lu toll ni fukki yoon dina la may bonus ci xéewal yi ñu multiplier ko ba mu doon fukk yow ñaata yoon nga def benn yoon nga def benn yoon rekk nga wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin yiw ba nekk ci benn yoon boobu nga julli ci yonent bi dinañ la dottil xéewal woowu ñu multiplier ko ba mu mat diis fois fukki yoon du yem foofu yonent bi nee na wa xuttat anhu achara xataayatin dinañ la effacer ñu gomme ci sa bàkkaar bàkkaar yi nga xamante ne rëcc nga leen te teyoo ko waaye du yem ñu effacer say bàkkaar waaye rufiat lahu achara darajatin dinañ la may kota ci daraja yu kawe fa yàlla ba mu tollu fukki daraja lala ko yóbbi muy benn yoon ba nga ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin mooy yàlla nga yokk xéewal ak mucc ci suñu sang bi di sallallahu alayhi wa kon ñàkk julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm, wóorul waaw ñàkk julli ci yonent wóorul bu dee mënees nañ ko joxe ko misaal daa mel ni ku bind leetar message bu foor nga narkaa jëmale ci kilifa waaye leetar bi amut signature amut en-tête amut tampon kenn kasewu ko papier kese dem leetar bi naam bind nga ko mooy ñaan nga waaw ñaan nga ci say ñaan ñaan bu amul salaatu ala nabi ci commencement bi amu ko ci digg bi amu ko ci fin bi ñu ne ñaan boobu du am valeur ca fa muy dem ndax la ko war jox valeur nekku fa te du dara lu dul boo ko ubbeewul ci allahumma salli ala sayyidina muhammadin ci digg ñaan bi danga wara julli ci yonent bi ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin wala ci njeexantalu ñaan bi nga wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin waaye ñaan ba jullit bi tàllal loxoom di ko ñaan yàlla commencement ñaan bi ba mu jeexal te julliwul ci yonent bi daa mel ni leetar ba waay bind te amul tampon amul cachet amul dara lay valoriser la nga xamante ne mooy ñaan boobu mbokk yi ba léegi ñu ngi leen di fàttali ne doomu aadama bi dafa war a bés yeey ñëw di jaar di jàll moo ko fi tax a bàyyi moo ko fi tax a nekk ba tax na bépp bés ba ñëw jaar jàll na xam ne am na lu wàññeeku ci dundam moo tax mu ne la yabnu aadam innama anta ayyaamun kullama zahaba yawmuk zahaba baaduk yow doomu aadama xamal ne lala fi tax a nekk lala fi tax a bàyyi mooy bésu àddina yey ñëw di jaar di jàll ba tax na nanga bàyyi xel ne bépp bés ba ñu jaar jàll xamal ne am na lu wàññeeku ci sa dund loolu di wàññeeku suñu dund nag di wàññeeku ci suñuy dund njaboot ñi ñëwoon nañ leen ne ñu ngi ci jamono yi vacances ngalla waaye nañu jël suñu doom yi yóbbu leen ci daaray vacances ba nga xamante ne fa la ñu war a mën a jàngee alquran fa la ñu war a mën a jàngee baatu yàlla buur bi tabaraka mu di alquraanul karim ba nga xamante ne moom la buur yàlla wàcce ci suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñewoon nañ leen ne keroog yóbbu nañu suñu élève bi ci daara ji commencé nañoo jàngal min suratul fiil ila suratul falaq jàngal nañu lu tollu juróom ñeneenti saar ya ci fukki saar yu mujj yi tàmbali ko ci alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil ba keroog ñu ngi taxawoon ak suñ élève ba ñu koy jàngal ci qul auzu bi rabbil falaq tey incha allah mu warñoo jàngal fukkeelu saar ba nga xamante ne mooy tëj saar yu mujj ya nekk ci alquran te mu toll fukki saar yu mujj yi kon ñu ànd ak suñu élève bi mu daal duñu jàngal fukkeelu saar bi nga xamante ne moo mujj ci alquran audu billahi min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim qul audu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد mbokk yi bii juróom-ñeenteelu saar bam ñu jàngal tey mu war ñoo war jàngal fukkeelu saar bi mu doon bu jeexal fukki saar yu mujj yi mu doon suratu naas audu min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim qul audu bi rabbi nnaas maliki naasi ilaahi naas min sharri lwaswaasi lxannaas alladi yuwaswisu fi suduuri nnaas min aljinnati wannaas suñu élève yi jàngal nañu fukkeelu saar ba jeexal saar bu mujj bi incha allah bi iznillah du ñàkk ndem sob na suñu boroom dinañ leen andil beneen waxtaan ci beneen saar ñu tàmbalee ko ci fukki saar ya toftal ci fukki saar yañ leen jàngal ni lu ko tàmbale ci watiini wa zaytuun bekk rek ñuy àgg ci waylun li kulli humazatin lumaza boo ko naree boole ak alamtara kayfa bi qul audu bi rabbin naas di nga gis ne élèves dinañu jàngal ñaar fukki saar ndax la ka tàmbalee watiini ba waylun li kulli humaza fukki saar lu ko tàmbalee waylun li kulli humaza ba qul audu bi rabbin naas fukki saar su ko defee élève bi am na ñaar fukki saar vingt suuraat képp ku ko mokkal ci alquran du ñàkk dinañ la ne góor góorlu nga ci sa kémta kattan kàttan yal ko yàlla yombalal amin ya rabbal alamin mbokk yi ñu bokk xam ne buur yàlla tabaraka wa taala mooy ki ñu xéewalal lam ñu xéewalal nii mu def ñu ci ummatun muhammad sallallahu alayhi wa mooy xeet woo xamante ne buur yàlla daf ñoo tagg ci alqur'aan mu ne ñu yéenay gën ci xeet yéenay gën xeet yama génnil xeet yama musa bind la waral nag len na dong du suñu taar di suñu melokaan di suñu lenn waaye nag dafa fekk ni rekk yàlla suñu boroom tabaraka wa taala li mu namm si képp ku ci góor góorlu nekk ci xamal ni yaa ngi nekk ci labur yàlla ne yenay gën ci xeet ci xeet yama musa bind moo critère bu mag boobu yàlla tabal ñu moo ne dañoo gën a am taar yeneen xeet yi déedéet moo ne dañoo gën a am mbindin bu jekk ka yeneen xeet yi déedéet waa tax yàlla ne ñu yenay gën ci xeet yama musa bind ci xeet ya jiitu woon kon du leen na tax amul dara li ko waral lu dut lañu borom bi sant ñu di si nekk lam ñu tere ñu di ko sore moo tax mu ne ñu kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yena nekk xeet yu yiw yena nekk xeet yam tànnal sama bopp yen yena nekk xeet wa nga xamante ne maa leen tànnal sama bopp ma jox leen ngëneel bu toll ni joxuma ko weneen xeet yaleen fi jiitu woon boo tax mu ne ñu kuntum nekk ngeen xayra ummatin gën ci xeet yam génne ci xeet yaleen jiitu woon la waral loolu nag mooy taamuruuna bil maaruf da ngeen nekk fi di digli lépp lu nga xamante ne lu baax la watan tanhawna anil munkar da ngeen nekk fi di tere lépp li nga xamante ne ñaawteef la wa tuminuuna billah ngeen daal doon ñu gëm yàlla kon bu fekkente ne nekk fi di gën ci xeet yàlla ñu ko tabal te dara warul mu tabal ñu ko ludut dañoo nekk di digle lu baax di tere lépp lu ñaaw bu dee loolu moo tax buur yàlla nomi ñu nomination kon ñun ñooy gën ci xeet ci ñi yàlla bind buur bi tabaraka wa ba tax na loolu lañuy ñuy ci ngéneel ba ñu yàlla tabbal noonu lañuy xamee ngéneel ba nga xamante ne buur yàlla tabal nañ ñu ko kon nañ leen géema góor góorlu di digle lépp li nga xamante ne méngoo nag lay buur yàlla sopp mu doon la mu gërëm waaye ñu géema sore lépp loo xamante ne buur yàlla gërëmu ko te yonent bi jàngalewu ko sallallahu alayhi wa sallam tax na ñu bokk di tàllal loxo buur yàlla saa su ne ci xadiisu nu'maan bun bashir radiallahu anhu nee na yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee ni ñu addu'aau huwa al ibaada wa qaala rabbukum ud'uuni astajibu lakum inna alladina yastakbiruuna an cibaadati sayadxuluuna jahannama daaxirin xadiisu saxiix axrajahu albaani xadiisu nu'maan bun bashir radiallahu anhu nee na naka suñu yonent bi ñu baaxee nañu ñaan yàlla de huwal ibaada mooy njombaxtalu jaamu yàlla ñi nee na thumma qaraa ginnaaw si yonent bi daal di jàng nee na yàlla daf ne wa qaala rabbukum seen boroom moo wax ne uduuni na ngeen ma ñaan na ngeen ma woo na ngeen ma ñaan ma mee leen na ngeen ma woo ma wuyu leen uduuni ñaan leen ma woo leen ma sàkku leen fa man la ngeen bëgg astajib lakum ma fekk ci leen ci loole yàlla nee na inna alladina gaa yi nga xamante ne yastakbiruuna dañuy rëy rëylu an ibadati di tàllal seeni loxo di ma ñaan ñooñu de sa yadxuluuna jahannama daaxirin keroog bés pénc dinañu tàbbi këru mbugal ba ñu naan jahannama fu gën a xuut azana allah wa iyaakum min an naar yal nañu yàlla boole musal ci mbugalu safara amin mbokk yi waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkati jotaay bi nar a jébbal béréb bi ñay joxe xibaar ci nasaraan ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajalana min allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana allahuma ya rabbi aati nufuusanaa taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa nicma almawla wa nicma alnasir baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafani llahu wa iyaakum bima fihi min alayati wa dikri alhakim aqulu ma tasmaun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu